Macky Sall fenn fu nekk jaar na fa ak ñi nga xam ne ñooy waa PDS ci ginnaaw ba nag la leen Macky Sall di nekk nekkal yéen a kaay gi de la Tribune nee na stade bii nga xam ne moom la ñu tuddee Abdoulaye Wade loolee nag firndeel na bu baax a baax rapprochement bi nga xam ne am na diggante Macky Sall ak Abdoulaye Wade yéen a kaay gi de l'info nee na Macky Sall ab dribbleur la waaye tamit ab jongleur la Macky Sall jongleur rek lay def yéen a kaay gi de la Témoin xëy duñu xibaar naan ñu Abdoulaye Wade mi nga xam ne moom la ñu tuddee stade bi waa PDS am na ñenn ñoo xam ne d'accorduñu ci yéen a kaay gi di Le Quotidien nee na lu jëm ci wàllu maal ak yi teraanga ju lewul ji nga xam ne moom lañ doon toppee Karim Wade ba léegi nii demul cee nga dikkul mbay laara boobaak léegi ëpp na juróom-ñaari kenn mënu wax na xaalis bii lañ ci dajale ñi nga xam ne ñooy avocat ba léegi ameel nañu leen ab xaalis yéen a kaay gi di wal fajri xëy duñu xibaare naan ñu retrouvailles famille libérale loole nag su amee ndax Karim Wade du mooy le grand gagnant yéen a gi xëy duñu ñu Macky a kaay gi de la turbine nee na ñi sa naaj wa nee na ñu ànduñu moom la ñu yoree parti bii di PDS ñenn ci karimis yi ñoo ngi sàkku ki nga xam ne mooy Saliou Dieng ñu daal di koy dàq yéen a kaay gi de la témoin nee na élection yi nga xam ne moom la ñu génn Benno Bokk Yaakaar ñoom ba léegi élection yu jeexaguñ ci ñoom ndax nag am na ñenn ñoo xam ne ñoo ngi tuumaal Mor Ngom ak ki nga xam ne mooy Mahmoud Saleh na ñooñu ñoo tax Benno Bokk Yaakaar am defeta ndax ñii ñëw sëggoon ci lu jëm ci wàllum investiture yi yéen a kaay gi de enquête ñu koy fekk fa Aliou Sall mi nga xam ne moo nekkoon maire bu Guédiawaye moom nag maire na bu futo attaqué na Ahmed Aïdara nee ak moom du dialogue kenn ñaana moom Aliou Sall yemu fa ci biir journal bi yàkk na musiba ak mbelengaana ñenn ñi nga xam ne ci biir benn bokk yaakaar la nekk ndax nee na am na ñenn ñoo xam ne dañuy jëlub xaalis di ko jox ñi nga xam ne ñooy opposition bi te nee na yàggatu la ñooñee ñëpp dina leen feeñal yéene kaay gi de la témoin xëy duñu xibaar naan ñi jàngalekat yi ñoom nag nee nañu bu ñu leen joxe ay garantie grève bi nga xam ne moom la ñu nekke ñu daal di koy bàyyi yéene kaay gi di réew mi quotidien kuréel gi nga xam ne moo ëmb élèves ndakaaru yi nag nee nañu alxamis bi xam ne moom la ñu dëgmale danañu wàcc ci mbeddi ndakaaru yi li ñuy sàkko mooy seen examen yi ñu koy dàq maanaam ñu repousser ko yéen a kaay gi di Sud Quotidien na lu jëm ci wàllum njëg yi nga xam ne dafa yokk ba léegi ni saafara amu ci moo tax nag ñi nga xam ne ñooy way góorgóorlu yi ñi nga xam ne seen loxo jutul seen ginnaaw ñoo ngi sonn ba maara détaal yi yéen a kaay gi di la Soleil nee na diggante Sénégal ak Turquie diggante ba neex na loola ndax nag am na lu toll si juróomi accord yoo xamante ni daan nañu koy signé maanaam lu jëm ci wàllum énergie wàllum transport wàllum industrie wàllum culture wàllum commerce wàllum défense waaye tamit am na coopération boo xam ne dox na diggante Sénégal ak Allemagne coopération boobe nag la sa bokk na ci wàllum industrie pharmaceutique ak wàllum hôtellerie ak wàllum abita ak wàllum pétrole ak wàllum gaz yéen kaay gi di réew mi ko di cee xëy duñu xibaar naanu liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk groupe Excaf Télécom ñoom nag fukki weer ak ñett ba léegi kenn fayu leen seen salaire maanaam lu ëpp at moo tax ni ki démb amal nañu toogaanu ñaxto yéen kaay gi nee na am na lu toll si juróom-ñaara cay nappkat yoo xam ne ca Kayaar ba léegi kenn gisule na dañoo ci ndox mi yéen kaay gi di Direct News nee na ASP yi nga xam ne dàqoon nañu leen jamono ji nag jëlaat nañ leen yéen gi di